wax moom li ci ëpp solo ñi lay déglu la ndax ki dem ba am fitu di wax rek xam na ni am na ñu koy bàyyi xel kon ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel liggéey bi di ko partager ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm rek ah, bu ngeen gisee sax liggéey bi mu ngi dox ndax gént yi moom nit ñaa ngi koy bàyyi xel waaye loolu lépp jàppandal nit ñi la waaye bari na yeneen tomb yoo xam ne bëgg nañ di ci dikk donte ñu ngi dikk yenn saay ci tomb yi waaye xat-xat mooy tax yeneen tomb yi duñ ci di agsi waaye incha allahu rab bëgg nañ agsi ci tomb yu baree bari ndax gént dafa nekk lu yitteel doomi aadama yi nekk loo xam ne daa soxal ñu baree bari te ñu baree bari dañu am jafe-jafe ci ku ko tekkil mooy waral ñu ciy gën di insisté di ci wax ay waxtaan waaye incha allahu rabbi ah, gannaaw bu loolu jàllee am na yeneen tomb yuñ fa yéene di indi ci ay bis yu nekk xam naa nag tey ñu indi beneen tomb bu am solo bu mat a bàyyi xel waaye bu yitteel doomi aadama yi tomb boobu nag jàpp naa ni doomi aadama yi ñu ci mucc bariwut bu dee am na ñu ci mucc bariwut waaye tomb la boo xam ne sonal nañu baree baree bare tomb ba nag buñ ko dee wax ñu koy wax émorit bu dee arab mu koy wax albawashi bu dee français di wax les émorites ah, tomb la bu am solo nag waaye bu mat a bàyyi xel waaye tomb la boo xam ne bu mat a jàngat la ci mbir yu baree bari moo tax ñu dikk ci hémorroïde nag nekk na lu sonal ñu baree bare bu dee wolof nag dañuy wax piccim kajoor ñu naan jàngaray kajoor nan def ñetti tomb yu am solo incha allahu rabbi awalan bu ci njëkk dinañ wax lan mooy hémorroïde bi ci toppaat mooy kum dal ba noppi bi ci toppaat pour nga xam signe yi nga xam ne mooy tax ñu xam ne yow am nga hémorroïde kon tomb njëkk bi buñ ko dee waxtaan buñ dee wax hémorroïde am na boo xam ne ci biir lay nekk am boo xam ne day nekk ci biti ñoon ko interne ak externe ala kulli xaal nag eh, ki nga xam ne hémorroïde dëggantaan mooy lan hemorit nag buñ ko de wax albawashi yaakaar naa ni ñu bari dégg nañ ci tomb yi ci nit ñi def ku ne xam ne bu dee bu nekkee ci biti la boobu awrida yi ñooy dajee awrida yi ñooy dajee dem ba nekk ab donju mooy wenn ci suufu nit ki ci bunt suufam ñooy dajee dem ba nekk ab donju donju boobu daal di gonfalee jël deret ñu ne diw daa émorit bi nga xam ne mooy génn ci biti di ko sonal bi nekk ci biir nag bari na sabab yi nga xam ne mu ngi koy def ci doomu aadama bi su fekkente ni mu ngi koy bàyyi xel ku ci nekk nag nim lay dale dafa wuuteeg sa moroom ala kulli xaal am na ci ñoo xam ne émorit mu ngi leen di dikkee ñiy wàccu rawat na nag suñ lekkee yenn lekk yi ñooñu dañuy wàccu am na ci ñoo xam nag bu dee hémorroïde dal na leen dina leen dëkkee biir bi daw ñi génn deret lu mat a bàyyi xel la baax baax ndax ku ci nekk ak nim lay dikkee kon am na ci ñoo xam nag bu dee hémorroïde mu ngi leen di dikkee di sëqat bu dee ci jigéen ñi ñenn ci ñoom hémorroïde bu leen jàppee dana dem ba ni sëqat fu ñu toll tawat yi nag am na ci yoo xam ni cër bam nekk lañ koy tuddee lu mel ni prostate damuy nekk ci góor ku ne xam na ni ab cër la ci góor waaye dañ koy tuddee prostate mooy feebar bu ñu tuddee ko curu cër boobu bu dee hémorroïde nag awra day nekk ci suuf nit ki mooy dem ba gonfale jël deret di ko sonal lool dana njëkk a manifesté wu nag ci biir bu sonnee nag ci lay mujjee génn kon loolu tamit mat a bàyyi xel baax a baax ki nga xam nag dafa am hémorroïde bi nga xam ne dafa génn mooy gën a sonn ndax ñoom lu ci ëpp duñ mën a toog dinañ ci bàyyi xel baax a baax duñ mën a toog waaye képp koo xam ne yaa ngi sentir ne ca buntu suuf bi dañ ci yëg ak mettit wala nga ciy daj lu mel ni ab donju jàppal ni am nga hémorroïde day ci bàyyi xel baax baax hémorroïde am nga ko ba tey tamit ki nga xam ne fu tollu toll day wàccu su lekkee yenn lekki kooku hémorroïde moo ko daal ndax noonu lay manifesté woo ci si jëmm jooju ba tey tamit ki nga xam ne day biram day daw bay génne deret kooku hémorroïde moo ko dal bu dee ci jigéen ñi nag seen hémorroïde lu ci ëpp ñu ngi koy jëlee seeni ëmb am na ci jigéen ñoo xam ni seeni ëmb ci lañu jëlee hémorroïde ndax day dem ba butit ba day diis diisaay gi muy diis mooy war du àttal bagage yi ba tax mu mujjee awra day dajaloo gonfale bu jël deret mu am hémorroïde bi nga xam ne day génn jeexintal yu def ci nit ki nag yu bari la bi ci toppaat mooy am na ci góor ñoo xam ni hémorroïde da leen di jàpp bay metti seeni ndigg lool sax ban jàpp ne dañoo am jafe-jafe ci wàllum digg fekk hémorroïde moo leen jàpp am na ci góor ñoo xam loolu dal na leen jàpp ne jafe ndigg la waaye fekk ne hémorroïde moo leen dal hémorroïde nag li muy def nit ki bokk na ci am na ci ñoo xam ne bu dee ci góor ñi dañ dem ba mujjee am jafe-jafe dootul mën a yëgati seen bopp ba mel ni ku tële am na ci ñoo xam loolu dal na leen waaye dañuy jàpp ne dañoo feebar fekk ne hémorroïde boobu moo leen jàpp ba mujjee leen yóbbee tawat jooju bu dee ci jigéen ñi nag jeexital yi muy def ci ñoom bari na tamit am na jigéen ñoo xam ne hémorroïde lañ def lu mel ni genre ballonnement ballonnement nag mooy sa biir yi fu mu toll di jël air ba nga yaakaar na nga ëmb fu ne nga dem fa ku ne ñaanal la taru dañ fekk hémorroïde la loolu tamit lu mat a bàyyi xel bu baax a baax baax la kon ba tey ki nga xam ne fu mu toll biir bi day jooy di yóoxu di jël air kooku tamit na bàyyi xel ne hémorroïde moo ko dal waaye nag hémorroïde nu wutee ci nit ñi nag noonu la fajee wutee ci nit ñi ki nga xam ne hémorroïde bi nga xam ne biir bi daw la ko def bokkut ak ki nga xam ne hémorroïde bi nga xam ne ay sëqët la ko def wala wàcc la ko def ku ci nekk dafa am noo koy traité am nag ñoo xam ni hémorroïde bi leen dal leen ko teg mooy seen buntu suufi yi koy jëfandikoo ba noppi buñ ko raxas raxas bu set yooyu mën naa dem ba waral hémorroïde ci ñoom am na ci ñoo xam loolu moo tax sabab seen hémorroïde am na ci ñoo xam nag lu mel ni genre infection moo leen dal surtout maa ci toilette yi bëri na ci nag ci wàllum siège yi ni ci nit ñi di toogee am na ci ñoo xam ne infection yi mën na leen dal ba mujjee leen a jox hémorroïde yii mooy yi nga xam ne ku ko yëg sa bopp jàppal ni xam nga am nga hémorroïde lu mata a bàyyi xel la bu baax a baax képp koo xam ne sentir nga yii ñu wax yépp jàppal ni am nga hémorroïde soo yëgi ak soo yëgul nag ala xaal ba tey ci hémorroïde ñu wax sabab yi nga xam ne mooy tax doomu aadama am ci hémorroïde sabab yi bu ci njëkk nit ki na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax kuy moytoo di lekk lu dëgër na nga ko moytu ndax booy lekk lu dëgër bokk na ci lay gàllankoor ba mën laa jox hémorroïde ba tey tamit ci sabab yi ñu waxoon ki nga xam ni buy dem toilette day onk lool lool lool ba sonn doog a mën a dem toilette na bàyyi xel ni hémorroïde dal na ko ndax lu dëgër lool mu lekkoon pour mu génn du yomb ci moom mu waral foo mu onk onk yi metti onk yooyu muy métti nag sonn lool muy dogg génn moo koy xaman loolu moom am na hémorroïde ala kulli xaal ba tey tamit ci jàngoro hémorroïde lu mat a bàyyi xel ki nga xam ne dafa am hémorroïde ci ni koy xamee ba tey li ñu wax léegi bokk na ci ba tey am na ci ñoo xam ne si hémorroïde koy xamee mooy seere bu bari nit koo xam ne foo ko fekk mu ngi seere na bàyyi xel ne am na hémorroïde su yooyu ak su yëgul nag am na hémorroïde ala kulli xaal kon tomb yu am solo yu mata bàyyi xel la sabab yi nag bokk na ci di lekk lu dëgër ba tey tamit ki nga xam ne sabab bi tax nit ki am hémorroïde bokk na ci lekk pat mooy fu toll di lekk pat pat bu baree bari ci nit ki doomu aadama bi day dem ba jox ko hémorroïde moo xam mburu la wala yeneen xeet yi ni lekk yu baree bari foo toll yaa ngi lekk pat yooyu day tax nga am hémorroïde ba tey bokk na ci yi nga xam ne day sabab hémorroïde lekk graisse gu bari loolu képp koo xam yaa ngi koy jëfandikoo lu bari foo toll jàppal ni hémorroïde mën na laa ganasi te bu la ganasee mën na laa bañ a gaaw a bàyyi hémorroïde nag nekk na jàngoro joo xam ne jàpp naa ne ku ko am bu yeeboo nga jóg ci teel koo faj ndax bu dee ki nga xam ne dafa am hémorroïde bu génn bi mën naa dem ba yóbboo ko cancer surtout maa ci butitu suuf bi nag dana dem ba yóbboo ko cancer mu am jafe-jafe te cancer mu ku ne xam na ni baaxut ci dundug doomu aadama bi ba tey tamit ki nga xam ne hémorroïde bokk na ci sabab yi nga xam ne mooy tax nit ki di ko am mooy toogaay bu yàgg nga toog lu yàgg lool te li nga toog wow kongo moo dañuy bëgg nit ki siy toog na toog fu xaw a dëgër su toogee yàgg mu daal di jub ba tey tamit bokk na ci nit ki su su bëggee xam ne am na hémorroïde ba tey na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax kon moytu googu mënu cee ñàkk koo xam nag dangay lekk lu bari di toog fu wow te doo entraînement doo dox lu sore ba ñàkk jàppal ni boobu sabab tamit day tax hémorroïde nga am ko kon sabab yi yépp képp koo xam ne yaa ngi jëfandikoo nii ñu la wax jàppal ni mën nga am hémorroïde lu mat a bàyyi xel la baax a baax hémorroïde nag traitement bi ku ne xam na ni nit ñu bari ñu ngi koy wax di ko def ku ne nag am na lu la yàlla dénk waaye képp koo xam ne ñuy faj ñépp nag nan bàyyi xel na ñettee ñëw ci ñoom ki nga xam ne moom yàlla daa nam mu wér su ñëwee ci yow day wér ak ki nga xam ne yàlla namu na mu tane tuuti su ñëwee ci yow dana am résultat tuuti am na koo xam nag yàlla nam mu mu fejoo ci yow loolu tamit lu mat a bàyyi xel ngi faj ñépp nag ñi ñoo ñëw ci ñoom moo xam sëriñ bi ñaan la moo xam médecin bi wala keneen ak keneen ñëpp ñëwandoo ci amandoo résultat loolu yàlla mayu ko kenn nag pour ñu bàyyi ci xel baax a baax waaye nit ki nag jaam bi lu tey nga defar say garab composé yàlla mooy faj lu mat a bàyyi xel la baax a baax ki nga xam ne am na hémorroïde nag na moytandiku yii nii bëgg a wax waaye ba tey tamit ki nga xam ne daa am yaram bu yaram bu baree bari bu rëy du sport di toogaay toogaay yàgg loolu tam mën na dem ba waral hémorroïde am na ci ñoo xam ne rapport bu bëri mën naa dem ba waral leen hémorroïde tamit lu mat a bàyyi xel la baax baax am na ci ñoo xam ne ci ci jaww ji nekk wala environnement bu nekk mën na dem ba waral ko am na ñoo xam ne infection mën na ko waral. yépp ay signes la yoo xam ne mën naa dem ba tax nit ki am hémorroïde su ko amee nag teel a seetlu signes yi ñu wax ci moom na ci teel a bàyyi xel pour teel see jël ay matuwaay ndax bu yàggee ci biir day dem ba mujjee génn bu génnee te fajoo ko mën naa dem ba waral cancer te cancer boobu bu ci àggee mën naa ëpp loxo du neex faj lu mat a bàyyi xel la baax baax ala kulli xaal ki nga xam ne dafa am hémorroïde nag di faju dem ci sëriñ mu koy faj wala ci ku koy mënti kaa faj na moytu yi ñuy bëgg a wax. bu dee garab tamit yàlla dogal na ni am nañ fi ay garab yi hémorroïde incha allah rabbi ku ko bëgg su ko neexee mën naa contacter ci numéro yi 78 443 75 27 ku bëgg garab boo xam ne hémorroïde la incha allah rabbi su ko neexee mën naa woote bu yàlla na mem wér incha allah rabbi dina wér te ku nekk boo ñoon di am résultat ci ñenn ñi nag waaye ñëpp moom mënoo ci am résultat cent pour cent lu ma ta bàyyi xel baax a baax. dañuy def traitement incha allahu rabi ku bëgg traitement hémorroïde rek su ko neexee mën naa woote ci numéro yi 78 443 75 27 kon ki nga xam ne am na hémorroïde mu dem ci nit mu koy faj na moytu yii benn na moytu gerte mm, ak yi nga xam ne daa xeetoo gerte kii ku ñuy faj ci hémorroïde nga bëgg a wér nag lañ wax bàyyi lii ñu lay wax nii gerte foo ko fekk ak yu niroog gerte bàyyi ko fa ba tey tamit lépp loo xam ne daa xeetoog wàllum pat soo ko mënee bàyyi mooy li gën ndax boo ko bàyyi tamit garab yi ngay naan mën na bañ a def effet wala effet bi war a def dëggantaan du ko def mooy wala nit dem ci nit mu koy jox garab muy naan di jëfandikoo fekk na la nga xam ne mooy tax garab bi mën a denc garab mën a faj moom ma ngay def liy tax affaire bi gën a yokk loolu tamit mat a bàyyi xel la baax baax ba tey tamit ki nga xam ne nga xam hémorroïde na moytu pat ak toogaay bu yàgg ci toog ci lu wow ba tey tamit bokk na ci li nga xam ne baax na ci ko am hémorroïde incha allahu rabbi su ko mënee nay jëfandikoo lu jëm ci wàllum firi su ko mënee na koy lekk inshallah allah rabbi su koy jëfëndiko yalla mën na dem ba mën na wañu lu bare bare ci mom te hémorroïde dafa nek jangoro jo xamne japp naan ci aduna bi yépp ñu ci mucc wut euh, ñu ci bari na ñu ngi ciy sonn lool fu ne dem nañ fa di ci sakku ay ndimbal ba na yàlla namagut ñu wër loolu tamit lu mata bayyi xel la baax kon si ñun waxon kep ko xamne yang koy yek ci sa bop bayil xel nga am nga febar bi ñu wax emorite nga daal di teel a jóg xool foo jëm pour mën a saafaraw ndax bu ëppee loxo rek dootu neex saafara te hémorroïde tawat la joo xam ne eh, day sonal doomu aadama bi lool kon ku ci bëgg mu ci tamit del bëri looy entraînement wala ngay dox dox bu xaw a sori ba xaw a ñaq tey moytu toogaay bu yàgg tey moytu lekk pat foo toll tey moytu lekk gerees gu baree bari ba tey tamit hémorroïde am na ñoo xam ne yëkkati diis moo leen ko jox di yëkkati diis mën naa dem ba seen jox leen diisaay boobu mën naa jàpp seen butit bu ci suuf ba mujj am hémorroïde loolu tamit lu mat a bàyyi xel la baax baax kon sabab yi yépp koo gis sa bopp da nga bàyyi xel ne am nga hémorroïde nga daal di teel a jóg pour dem def traitement incha allahu rabbi soo ko defee suñ borom man naa dogal nga mucc ci ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaan suñ mborom defal ñu tawfiix in uridu illa al islaaha mastataatum wa ma tawfiixi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu